acca jërë ngeen jëf euh, yéen sunu mbokk internet bu 221 people ñoo ngi leen di nuyu di leen di jaajëfal bu baax di ci delloowaat rek ku nekk euh, sa wàccuwaay amaat lii di kontaan ak mbégte bu baax nag comme ni ma ko faral def saa su nekk kilifa yi wala sëriñ boo xam ne dama laa dalal ci biir site bi rek saa su nekk damay bëgg ñuy waxtaan ci xam-xam di ci yaatal bu baax a baax ba tax na nag tey nag indilaat naa leen beneen kàngam boo xam ne fas yéenaa ñu waxtaan ci xam yaatal ci bu baax a baax kooku mooy kan kooku mooy sëriñ Modou Ndiaye Nourou Darayni di rakk ci sëriñ Bara Ndiaye bu def gis tey nag dinañ waxtaan ci xam-xam yaatal ci ponk yu bëree bëri waaye duñ fa jógee dinañ wax waxtaan ci xew-xewu jamono mu di actualité ni ma ko waxee saa su nekk nee naa leen gars yi ku déglu di nga dégg xam-xam waaye ku topp bu baaxee tey rek nga dégg fi révélation yu am solo jëmale ko ci ku kujje langue politique bi ba ci président Ousmane Sonko Macky Sall acca euh, kilifa gi laata may def dara damay bàyyi nga nuyoog mbokk askan bi bisimilah sëñ Modou Ndiaye. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. wajaal kalaami rashidan wa murshidan wa fikrati nawir wa qalbi arshidan saddit lisaani nawwir janaani soffi amaani wasil baraay mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaare bu baax di rafet lu ànd bi ngeen di ànd ak ñun saa su ne ci émission yi ni def mooy émission yu fasantikoo ci wàllu xam-xamu lasraar di nuyu mbokk àdduna bépp wala mbokk mbokki téléspectateur yi nga xamante si ne nii ñoo ñuy seetaan di nuyu tamit sama mak Cheikh Bara Ndiaye borom def gis di nuyu mboolem ñi nga xam ne saa ne rek émission buñ def rek. Euh, te xam-xam di ci juddoo ñu koy seetaan bu baax te di ko partagé kon tey ñoo ngi fii ci 221 people incha allah fas yéene fee def émission bu am solo boo xam ne lépp ci xam-xam rek lay tegu incha allah taala ñu ngi leen di bu baax di leen ziare. jërëjëf sëriñ euh, Modou Ndiaye euh, Nourou nii jërëjëf ci nuyoo bu am solo boobu ñu ngi lay fay bu baax di lay kontaane nee naa leen euh, doon rakki sëriñ Bara Ndiaye def gis doy na ci présentation. atia tey nag dinañ waxtaan ci juróomi ponk waaye juróomi ponk yooyu ci xam-xam rek lañ koy wér diggante ñaan ak paj bi nga xam ne saa su nekk it yaa ngi ciy def résultat waaye duñ fa jógee dinañ waxtaan ci xew xew jamono mu di actualité rawatina li nga xam ne gis na ko niki le nga xam ne am lay lënt lënt waaye coow li dinañ ci waxtaan ci politique bi gannaaw ba mu bëggee yaatal ci ni mu jàngate discours président Ousmane Sonko ni ki démb aja kilifa gi daam foo xam ne foofu laa namoon tey ñu tàmbalee euh, te ngeen ci yëngatu ñu xam leen ci mu di mbiram asraar euh, lan mooy xam-xamu lasraar loon ci mën a laay biire jàngal ñu ci waaw ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziyaare waat bu baax di rafetlu ci laaj bi ñu laaj laaj bu am solo la boo xam ne yaakaar naa ne war jamono lan mooy xam-xamu lasraar dafa doon mbir moo xam ne mel ne na jamono ji dafa yaatu lool ñu bari di ko woote woo te mu doon mbir moo xamante si ne nii mbir mu nëbb la doon mbir moo xam ne itam mbir mu làqu la doon mbir moo xam ne itam mel na ne xaw nañ koo saldal ci jamono waaye lu sell la lasraar ku ko xam dëgg xam ne mag ña mag ñu sell ña ñoo ko daan jëfandikoo baatu lasraar ci la ñuy njëkk a ñëw bu ñu waxee baatub asraar mooy lan mooy baat bi li mu firi ci arab mooy ay secret mm-hmm. ay secret nag suñ boroom tabaaraka wa da koy jox nit ki nga xam ne da ko yoyo mooy ki nga xam ne dafa raxas ndabam bam sell jëm ci boroomam jaamu yàlla suñ boroom tabaaraka wa taala ba yàlla am ay secret yum ko jox loolu moo koy wutaleeg doomu aadama yi mm-hmm. lasaraar secret lay firi waaye ku sell mënoo ko am waa wala koo xam ne jaamu wo yàlla moo xam nag noo man di jaamoo yàlla xeeti jaamu yàlla yi bari na lasaraar nag ci jamono jii hmm. dafa doon loo xam ne dafa tumaranke maam niiwaana nga gis ku ko xam wala koo xam ne da koo peeg wax ji nag mën na cee bari lool nga dégg ñu koy waxee waaye ñi ci nekk wala ñi ci coow ñu ci bari seet ak yooyu yëpp maanaam mënees na ko man waaye faj aajoy nit loolu ko xamul xam-xamu asraar mënoo ko asraar nag hmm. dafa doon mbir moo xam ne boo ko xamee dëgg téeméeri nit buñ ñëwee ci yow te fekk xam nga ko mm. donte amoo ak wilaaye sax juróom-ñeent fukki nit yi ak juróom-ñeent yëpp dina gis résultat c'est parce que li ngay def da nga ko teg ci xam-xam kon looloo tax xam-xamu asraar ñun ñëpp dañ koo war a maase ndoowaat gëstu maanaam gëstoondoo ko mm-hmm. asraar nag ni ma ko mën a misaalee dafa mel ni ak garab goo xam ne dafa am ay euh, nuñ koy waxtee dafa am ay ay reen am ab dàtt mm-hmm. am itam ay xob waaw noonu la demee jëmmi xam-xamu lasaraar ci boppam day mel ni mooy jëmmu waaye xob yaag dàtt ba mooy eh, jumtuwaay yi nga xam ne moo ko war a wër nga xam ne kooku ki ki maanaam nga xam dafa woote wa xam-xamu asraar dafa war a xam yooyu muy lu jëm ci eh, maanaam ilmul xisaab ak ilmul xadat maanaam mën a kalukin turu nit ki man caa génne yi nga ca war a génne boo ca noppee nga xam ilmul xawaatim mooy naka ngay jëlee turu nit ñaari nit yoo xam ne dañoo féewaloo nga fexe ba boole leen ci xam-xam ci xawaatim mooy carré yooyu ngeen gis ñu koy dagg suñ émission yëpp sax boo xoolee ci lañ ko daan def mooy tablo bi mooy carré yooyu ngeen di gis loolu xam-xam pire la loolu ku ku ku maanaam ku ko xamul rek ñemewoo di ko def waaw ndax dafa doon xam-xam boo xam ne dafa tumuranke ilmu nujum itam nit ki war na koo xam bala moo woote ne xam maanaam euh, cheikhul euh, lasraar la war naa xam itam li ñuy wax ilmu ramlu mm-hmm. mooy tomb yi loolu itam nit ki war na koo xam maanaam li ci nekk maanaam ba ci añ mu daqaaix mooy xam mu sunguf ak reen loolu ba tey génnul ci xam-xamu lasaraar adawaat yooyu nag nit ki doo ko war a xam ba noppi nag soo ko wax ne ab seexul lasaraar la waaw loolu loolu loolu maanaam lu ci ama am solo la lu ama am solo la itam ki kay woote woo mu xam ko lool ndax daanaka boo ko xamee moo gën a gaaw yeneen xam-xam yi gaa yi wax ay xam-xam bu ñuul yooyu mel noonu yëpp am na solo yàlla da caa génnul waaw turu yàlla génnu ca. ba ci xilmul asma mu talaasim yooyu yëpp ci xam-xamu lasraar ci la ne. xam-xamu asraar dëgg nag foo fekk ku ko yor ku sell lay doon mooy koo xam ne ab jaamukatu yàlla lay doon foo ko fekk itam lu lew rek lay dundee. foo ko fekk itam xeeti xam-xam yi ma wax yëpp da koy peek foo ko fekk itam ab fajkatu aajo lay doon loolu nag bokkut ak ki xam ne maanaam dafa am li ñuy wax al ijaabatu moom maanaam koo xam dafa jaamu yàlla ba yàlla wuyu ko nga xam ne xamul sax ay asraar waaye day ñaan muy nangu teewut tamit borom xilmul asraar tamit day ñaan muy nangu waaye ñoom ñaar ñu kee dafa soobu li ñuy wax yoonu tasawuf di ñaan mu nangu kii dafa am xam-xam boo xam ne xam-xam bu yàgg la ci jamono nga xam ne nit ñu bari dañoo tàyyeel dem gëstu ji ko moom mu dem gëstu ji ko ba xam ko ñëw di ci faj ay aajo kon xilmul asraar ak borom ijaaba ci boppam loolu lañ wutee waaye xilmul asraar moom képp ku ko xam ab fajkatu aajo bu mag a mag a mag ngay doon ñi ko xam nag daa bariwul waaye nañ jug rek dem sàkk ju ko incha allah taala tabarkàlla jërëjëf sëriñ Modou Ndiaye Nourou nii kon li nga jot a développé am na solo lii laa bëgg saa su nekk ku ma dala damay bëgg ñuy waxtaan ci xam-xam ngir ñii taataan rek mën cee jël lii di njëriñ am na solo acca waaye du ma fa jógee damay daal ci beneen ponk tàbbi ci mu di mbiram seet looñ ci mën a baaxee waaw laajaan nga laaj bu ama am solo muy lu jëm ci xam-xamu seet seet nag dafa doon loo xam ne lu yéeme yéeme yéeme la ndax façon seet yi dafa bari am na ci ñoo xam ne dama koy commencé ci tubaab bi tubaab bi sax dañuy seet ndax am na lu ñuy wax horoscope dañ ciy seet mooy jël euh, nit ki at bi judd maanaam date de am ak weer wi mu judd comme ñu ne sangam la wen nangam décembre la juddoo wala nangam nangam 1980 nangam loolu dañ ciy seet waaw dañ ciy seet kon tubaab bi kon réeré wuñ xam-xam te tubaab bi sax boo xoolee sax seen lépp ci xam-xam lañ ko teg ndax boo xoolee ci téléphone yi boo xoole maanaam fi ngay composé maanaam boo doon composé numéro yaa ngi gis mu tàmbalee un ba neuf loolu xaatim la loolu la ñuy wax xaatimu musallasul xasaal yi la tubaab bi jël liggéeyee ko téléphone yi. nga xam ne kon tubaab bi kon ñu xam lasaraar lan hmm. waaye lasaraar googu ñu xam nag ñu ko xamee ñoom ci science science boo ko jëlaatee day delluwaat ci alxuraan hmm. kon tubaab yi xam nan xam-xamu lasaraar hmm. te mooy yahudi rek ak nasaraan yi ñoom ñu ama am xam-xam lan boo dee gëstu sax ba àgg ci ci ci ñoom sax da ngay fekk yu bari ñun yoo xam dañ koy jëfandikoo ñoom da ngay fekk ñu koy jëfandikoo léegi xam-xam boobu dañ ciy seet mooy jël date de naissance yu ki di ci seet ak xeetu mel noonu waaye seet nag weesu na loolu ci boo xamee xam-xamu ndax am na lu ñuy wax ilmu nujum mm-hmm. te moom moom daanaka mooy nday xam-xam yi mu nujum boo ko xamee mm-hmm. maanaam horoscope fi mu yem ak ramlu mooy tomb yooyu pël yi def fi mu yem mm-hmm. nga xam ne ay góotal ak ay nangam nangam fan yem moom foofa la tàmbalee ñoq li jëm kaw te suñ borom dane alladina yuminuuna bil ghaybi wa yuqimuuna salaata wa mimma razaqnahum yunfiqun alquranu karim ci la lépp ne lépp loo xam ne rek boo demee ci lu ñuul mhm. mu may la ko boo demoon ci alquran mu may la lu raw lool te day sax ndax fi ne nii sax boo xoolee mhm. seytaane mi nga xam ne sax moom la nit ñi maanaam maanaam maanaam maam seytaane mi nga xam ne suñu borom da ko may doole nga xam ne boo xoolee ci tedd nga ak suñu borom bi ñu wax turu yàlla yu ñu wax yaa xasiisu mhm. ci la amee doole jooju waaw ndax dane fa bi izzatika dane ko yow maam ci sax tedd nga ci boppam ci lay beewalee nit ñi kon seytaane moom mii nga xam ne si ne nii moom itam dafa am xam xëy bu xam-xamu xëy bu maanaam xam-xamu seet boo ko déggee mooy xam-xamu xëy bu rek mooy ko xam ne day xam loo xam ne ñëwagul waaw léegi nag maanaam jëmmi xilmu nujum nag dara mënu ko ci mooy nga seetal nit ki wax ko fan lay teg tànkam wax ko ay mbiram yëpp wax ko naka lay def ba ak dundam jag waaw mboolem lu aju ci mbiram yëpp nga daal koy xam léegi nag bokkut ak loolu bokkut ak dañuy wax al istixaara mooy jaam bi nga xam ne dafa toog ba trois heures du wala deux heures moo jaa di jël kurusam jàpp ba sell daal di la ba noppi daane ko yaa rabbi xamal ma ci diw sàngam nangam xamal ma ci diw sàngam nangam mu tëdd suñu borom tabaaraka taala wan ko loole kon loolu itam boo xoolee moo gën a kawe seet moo tax seexul asrar dëgg dafa war a boole ñaar yëpp mooy dafa war a xaar di seet waaw waaw war naa boole ñaar yëpp man de ku ma nam ma ñaanal dëgg dëgg dëgg dëgg loolu laa lay defal waaw dama maanaam dama lay listixaaral waaw te man sama listixaar damay seetaan dinañ xam ne kii ak li si xaaram moom tabaarkàlla waaw man moom ku ma li si xaaral moom jëmmi at mi yëpp bu la neexee mën nga cee bañ a seetluwaat waaw man moom noonu laay doxee. waaw tabaarkalla jërëjëf jërëjëf euh, sëriñ Modou Ndiaye nii jërëjëf ci xam-xam bi waaye jërëjëf ci leeral yu am solo yooyu nee naa leen euh, du doon ku naqaree jot ndax numéro bi mu ngi doon office suufu barre d'écran bi yow da nga koy contacter rek dina jëflanteeg yow ba soxol sedd guy atia yaa xam nga nekk ci biir réew mi wala bitim réew euh, damay dox ñu wéyal ba léegi jàll ci beneen ponk jaaro yi bëri nañ de naam waaye xam naa sa jaaro <laughs> ñàkk ko am de wóorut ñu ñëw ci sa jaaro bi ci lan lay dox njëriñam ci lan la. tabarkàlla laaj nga laajaat bu maanaam bu am solo boo xam ne gis naa ñu bari ñu ciy wax ñun boo ñëwee ci kër gi xam-xamu lasaraar bi dañ koy jàngale te ñun koy jàngal ay kilifa lañu waaw loolu moom maanaam mooy lu wér ku ñëw àllarba bu jot ak àjjuma bu jot ay nit yu bari yu fasanti ko ñii dañuy génn ci télé bi ñii itam xamuñu ne dañ leen di jàngale mul asraar <laughs> xam-xamu jaaro nag dafa doon loo xamante si ne nii dama dégg ñu baree bari di ko wax te jaaro dafa doon lu yéeme ndax fi mu ne nit ki ni nga mënee ñaan ci suñ borom wala nga jox ko sangat wala xeetu mel ne nu ubbi ko noonu nga ko mën a tëjeet doo ko yëg te xawaatim te te maam jaaro yi damaa gis ñu bari di ci dugal ay xaatim yoo xam ne ñoom ña koy liggéey sax buñ dundee ay at ñu mën a amati xaalis ndax xaatim yooyu dafa doon ay xaatim yoo xam ne am na ci xaatim yoo xam ne kenn du ko liggéey ci bëccëg am xaatim yoo xam ne boo ko dee liggéey sa takk bu nekkee ci biir da ngay tëju wala sax mën na laa indil feebar am jaaro yoo xamante si ne nii kenn du ko liggéey guddi am na jaaro yoo xam ne kenn du ko liggéey fu mbooloo nekk am jaaro yoo xam ne si ne nii dafa am ci maanaam maam dëkk yi nga xam ne dafa am ndox lañ koy liggéeyee am jaaro yoo xam ne si ne nii sax ci biir jàkk lañ koy liggéeyee maam jaaro dafa bëri ay façon léegi loolu nag yow mi nga xam ne nag danga nga maanaam jaaro bu wér nga bëgg dangay xool ku wér koo xamante si ne nii xam na hin mu nujuum as sa yaara ndax xilmu nujum dafa bari ay façon mhm. waaye ki nga xam ne xam na xilmu nujum asayaar nga xam ne ñoqali na mhm. ba weesu biddiw yi weesu asamaan yi xam lu baree bari ndax yonent bi daan wax ne mhm. borom xam-xam yi eh, nujum yi maanaam nañ leen moytu ndax ñoom daanaka ay borom yi wilaay la yéen ndax daa maanaam yu baree bare bari yoo xam ne dafa fàddu nit ñi da nga koy xam te loolu du doon baatin maanaam xam-xam dong lay doon léegi nag jaaro nag waroo koo liggéeyal nit ki te xamoo biddiwam xamoo itam xam ndax nit ku nekk da ngay am ñaari biddiw da ngay am biddiwu zahir am biddiwu baatin da ngay am tabixab zahir am tabixab baatin léegi ñaar yooyu noonu da ko war a xam xam ban tabixa moo gën a not ci nit xam ban biddiw moo gën a not ki maanaam not ci nit ki xam itam bisu nit ki xam itam heure nit ki xam ay raw rawxaani yaam fan lañuy ñuy féete waaw ndax waaw waaw waaw door ko mën a liggéey loolu léegi léegi nag maanaam tamit boo boo boo xamee lool pare war ngaa mën a xam ban xawaatim nga war a mën a liggéey nit ki correspondé ko ak rawxaaniyaam ak biddéeyam ay mbiram di dox nga xam ne ki xam loolu bu la liggéeyee jaaro ba noppi li fekk nit munut a yéewtu asamaan si jël ci ab biddiw téye ko nit ki munut a teex tax say mbir di dox ñun suñuy jaaro ñun noonu lay demee suñ jaaro dañ la koy liggéeyal ci sa biddiw ci sa tabian ci sa bis ci sa cuuraay ci sa rawxaani ya lëkkale laa ki itam sa rawxaani ya sa mbir di dox nga xam ne képp ku mun ta faat sa rawxaani ya rek kooku mun tee say mbir dox te itam waaw mo mo nekk nii te kenn ku ne itam da ngaa am sa peri bopp gis nga fi mu ne nii am Modou Ndiaye mu ñëw ne la liggéeyal ma eh, maam jaaro kenn du ko jaay jaaro kenn du ko jaay jaaro boo boo ko boo ko dee jaay rek yaa ngi rey nit ki jaaro nit ki bu ñëwee da ngay xool mbiram xool biddiwam xool xool tabixam xam ban cuuraay moo wara dugg ci jaaro bi xam ban per nga koy liggéeyal xam ban xawaatim nga koy liggéeyal waaw léegi nag boo xamee ba pare jaaro ci boppam mën nañ cee defal nit ki loo xam ne si ne nii day am bayra day am yitam xaalis day am kaaraange waaye loolu nag dañ koy côté maanaam ay mbir lay doon ay boo xoolee itam loolu kun koy liggéeyal ndax am nañ nit ñoo xam ne nii bayra leen neex ñooñu bu ñëwee mën na leen cee liggéeyal bay am ñoo xam ne kaaraange leen neex am na ñoo xam ne ubbeekoo leen neex am na ñoo xam ne ñetti yëpp la ñuy bëggandoo léegi loolu tamit faaw nga xam tamit xilmu nujum assayaara ba tey ngir man cee liggéey ñett yooyu yaay jaaro daal incha allah képp ku ñu ci jëflante sa xol dina dina sedd incha allahu taala jërëjëf cheikh bi euh, mu di Serigne Modou Ndiaye nuuru dare ni nee naa leen jaaro yi bëri nañ de waaye bu nekk ci la nga xam ne ca lay dox waaye jaaroom <laughs> ñàkk ci am daal wóorut euh, damay dox ci beneen ponk yaatal bu baax a baax ñëw ci impuissance sexuelle mu di néew kàttan ni mu ko waxee tu li ci ëpp ndaw ñi ñoo koy jàmbat ñeen lan nga leen di baaxee ci néew kàttan waaw impuissance sexuelle moom tamit bari na lool waaye ñun dañ koy faj bu baax waaw yaakaar naa sax cabine ba sax ñëpp xam nañ ko impuissance sexuelle bu fekkee ki nga xam ne moom dañ ko takk xala nga xam ne dafay am ñaari soxna day dem fe mbiri du dox di mu dem fee mbiri du dox loolu moom kum dal dama naan la boo dee ñëw bu la neexee nga indaale sa soxna boo ñëwee li ma lay jox da koy suuroo fi saasi da ngay summeeku daa di muuru suuroo ko fi saasi mbir mi dañ fi saasi mbir mi tàmbalee dox waaw takk xala moom amul ay benn bis amul ay ñaar bis ñetti bis bu fekkee nag danga bëgg garab goo xam ne itam ndax ndax dafa am ñoo kenn ku nekk la ngay bëgg am na ñoo xam ne bu ñu bëggee dañu bëgg maanaam tëlewun waaye dañoo gaaw a àgg ñooñu am na benn pomade boo xam ne ci lem lañ koy liggéey ak benn aaya ci alxuraan buñ la ko joxee boo ko defee ci sa euh, sakara boo sëyul lu ëpp 40 minutes ñëwul ñu delloo la sa xaalis liñ la jaay baaxul. waaw boobu tamit am nañ ko am nañ boo xam ne ki nga xam ne dafa bëgg a traiter impuissance sexuelle am nañ benn sunguf boo xam ne xam naa ne sax dama xaw a sori waaye sunguf boobu ñeme woon naa ko wane ci ab site amul fii Sénégal waaw sunguf boobu man na maa waat ne man képp maa am bu boo boo ñëwee ñetti lam yekku nii yi ma koy booleel mbindum alxuraan lay doon nga xam ne saafara si ngay naani sunguf si day dañ te dootul ñëw impuissance sexuelle nu mu la mën a dalee boo ko jëlee day dañ te dootul ñëw waaw impuissance moom loolu laa ciy wax ndax ñu ma ci xam bari na daanaka du ma ci du ma ci guddal bu baax. Mm. kon euh, mu ngi noon ci nga xam ne am nañ tawat boobu soo tiimee daanu wala juróom minutes yu mat sax mënoo ko cheikh bi nee na soo ñëwee lu tollook ñeent fukki minutes mën na ko liggéey nga jëflante ko acca euh, laata may ñëw ci beneen ponk mu bokk ci nopp nga xam ne nag ñu bëri dañ ci waxtaane laata ma ciy ñëw ku bëgg am xaalis bu gaaw lii nag sama mbokki ndaween ñi ak ñu sant jàll moo tax ma koy laaj ku bëgg am xaalis bu gaaw xam nga laaj nga laaj bu am solo boo xam ne xam naa dina yitteel ñu bari ndax xaalis moom daanaka rek mooy mooy mooy maanaam mooy tax sa lépp jag mooy tax itam nga deseeg sa ngor moo tax itam mooy tax itam kenn du la du maanaam du la yab moo tax itam doo tàllal loxo kenn léegi nag wërsëg nag maam jëmmi xaalis nii ab liggéey sabab la rek ci la koy maye waaye la koy maye dëgg ay secret la te mag ñi daal doon ko liggéey dinaa ci maye nag benn benn benn benn secret incha allahu taala secret bu wér boo xamante si ne nii képp koo xamante si ne nii def nga ko suñ borom tabaaraka wa taala dina la dimbali bis ba nga ko defee ba ngay faatu dangay ngay dimbali waaye kenn kenn du la dimbali loolu dinaa ko joxe càngat nag lay doon. waaw càngat li lii lii sax nii waa na lu ma koy joxe waaye tey moom dinaa dinaa ko maye ndax jamono moo toll foofu ndax xam-xam boo ko joxoon nit ñi suuf si képp nga koy jox képp koo xam ne danga bëgg alal ju bari ba pare yaatu lool ba pare leew lool mm-hmm. ngay dimbalee te kenn du la dimbali jëlal secret bii ma lay jox nga jëfandikoo ko mm-hmm. noo koy liggéeyee sóoratul waaqia mm-hmm. ngay bind lu benn yoon waaye aaya boo bind da ngay bind alam nasara ci biir alam nasara yi aaya boo bind nga bind zuy na linnaasi xubbu shahawaati ba ca xusnul maab bu àggee nga def ko càngat waaye càngat li da def sungufu or sungufu xaalis ak parfum bi ñuy wax sikki noo koy sangoo ab altine nga ciy sangu boo ci sangoo bi su altine nga bàyyiwaat ba alxemes nga sangu wàcc ñaari fan yooyu képp nga ciy sangu boo ko sangoo kilifa gu mag moo ma ko joxoon ne ma noppee ngaa torox ci sub dund te dangay ngay dimbali te kenn du la dimbali te bala ngaa faatu ñu dégg la ci borom alal yi waaw kon loolu na ko nit ñi jël man maa leen ko may incha allahu taala euh, yéene naa leen ko ndax euh, jàllale na ko tam na loo xam ne may na leen ko ci kooku mooy euh, Serigne Modou Ndiaye aca fa may jeexale laata may ñëw ci actualité mu di xew-xew jamono mu di noob Serigne bu ma dalal nag da cee wax noob ci boppam est-ce que yombe na ko ne ko Serigne si di waxee waaw noob sax bari na ñu ma xam ñoo xam ne sax ci nopp lañ ma xamee ndax bari na ay sëriñ soo xam ne si ne am sax jafe boobu bi may jàng xam-xam maanaam bi ma jàngee alxuraan ba mokkal ko ba jàng li ma war a jàng ci xam-xam ba mokkal xam-xamu xawaatim laa dem jàng maa fi ne nii maanam bu ma neexoon ne man expert laa ci wàllum xawaatim xam naa sax bu ñu defaat émission dina indi bi ndax dinaa jàngale ay xawaatim yu bare bare bare yoo xam ne dina am solo lool ci ci ci ci ci ci ñun incha allah jëm mi noob nag dama cee yor loo si ne nii dafa lool mooy musallas boobu ñuy wax musallasu kar dafar nga xamante si ni daanaka bu fekkoon nopp maanaam jëmmi nopp dafa nekk jëmm. Mm-hmm. am ab sëriñ dama naan musallas boobu ci boppam mooy seen sëriñ nga xam ne man ki may bëgg a noobal mooy ki nga xam ne si daa wër ba dajal ñëw na ñëw ma noobal ko mm-hmm. waaw képp koo xam ne da ngaa ba dajal mm-hmm. ñëwal ma noobal la. nopp gi may liggéey tam ci kar dafar boobu ci ëlliway xànjar laa koy liggéey teg ko ci gaz di ko ci kar waaw loo dëgër dëgër bopp bu maanaam sa soxna boo xuloo woon ak moom léegi. ba mu nar a génn nga woo ma ne ma day génn ba ma ko defee ba ma ko sikaree boo xëyee suba boo ma woowee da naan fi ne nii daa mel ne daa génn ci xelam waaw léegi maam xam-xam yooyu la jamono soxla jamono ji mm-hmm. li ma ci xam itam ci wàllum xawaatim kenn mun laa wax nu mu toll boo demee ci internet bi jàngale naa ci lu bari mm-hmm. waaw jàngale naa musalasu laskandari yu jàng naa musalasu daxmuus yu ne jàngale naa ko ci nopp mm-hmm. waaye noob gi may liggéey dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg képp ñu bëgg ñu jëflante ci dang may woo moo xam muy nit ku weex moo xam muy nit ku ñuul moo xam muy nit ku xonq moo xam koo xam ne danga ngaa sunguf reen def nga lu ne mënoo cee gis résultat dama lay noobal sikaral la nga gis résultat noob moom sama mbir la daanaka sax bu fekkoon sax am na ci loo xam ne sax maanaam maanaam comme bu fekkoon doom aadama bi ñeme naa bàkku moom dama ciy bàkku waaw loolu suñu borom moom ma ci defal tawfeex noob waaw ndax noob yi ci gën a wér sikar lay doon te itam xam-xaw lay doon waaw xawaatim rek moo moo moo maanaam moo man loolu kon nopp tamit loolu rek laa ciy wax tabaarakallah jërëjëf sëriñ Modou jërëjëf ci xam-xam bi waaye jërëjëf ci leeral yu am solo yooyu noonu lépp nga xam ne ci xam-xam rek lañ ko wéeroon di ci yaatal ngir ñi nga xam ne dañuy taatan saa su nekk dañ ciy jële lii di njëriñ aja boobu nag yéene naan leen ko yéen sama mbokki Modou Modou yi ba ci faatu faatu yi ngeen mën na jëflanteeg xonq nopp yi aja fa may jeexale bokk na ci xew-xew jamono mu di actualité ah doy na waar le 16 ku ne gis na ni mu meloon tànk jër le 30 bii di ñëw ci lañ renvoyé ci la waroon ci la war wuy ji ndax Ousmane Sonko dina ci mucc. waaw. tabaarkàlla ñu ngi leen nuyuwaat baax di leen siyaare xam nga Ousmane Sonko moom dina ci mucc wala dina ci mucc loolu moom yàlla rek moo ko xam waaye ñoo ngi koy ñaanal suñu borom tabaaraka wa taala yàlla na ci mucc ci barke bi Sëriñ Tuubaa réew mi nag ndama gis ne hmm. benn wax maam laa am ci lu ma ci wax maanaam ñi nga xamante si ne nii dañoo déggoo dañoo àndul waaye ñi déggoowul ñoo ànd loolu laa ciy wax ab ab wax la boo xam ne dama koy tënk rek sànni ko noonu maanaam ñi nga xam ne dañoo déggoowul ci boppam ñoo ànd joxante seen bopp di liggéey ñi déggoo ci boppam ànduñu waaw loolu moo ci ne waaye nag lii jàll ci 16 mars bi moom euh, tawaarkàlla yéeme na lool te itam képp koo xam ne saw yaram day daw itam saw yaram war naa war naa daw waaw ndax bu dara ab jullit la mm-hmm. bu dara itam boroomu njaboot la bu dara itam doonte fukki nit topp nañ ci ginnaawam waxuma la moom sax méttitu xol bi mu ciy am waaye ñi ko topp rek méttitu xol yan cay am rek mm-hmm. loola rek war naa métti ab jullit bu nekk waaye daal ñoo ngi naan ñoo ngi ñaan daal saa borom yàlla na ko defal jàmm mm-hmm. te réew mi itam saa borom def ci def ci jàmm waaye nag bootul nag lii raam ca ñag ba la jëm. lan waay lii raam moom ca ñag ba la jëm ndax euh, pouvoir bi ak opposition bi dañoo doon ñoo xamante si ne nii dañuy laam-laamee ñii dañ naan ñii ñoo ëpp doole waaye ñii ñoo ëpp waaye ab peuple moo ëpp doole lépp te Ousmane Sonko peuple bi ñoo ànd ak moom kon lu gën a mën a nooyal jëm ci moom moo gën ci moom waaw te nag bu bu bu bu bu maanaam mbir yi bu xasee am hmm. amul fenn fuy mucc ci Sénégal waaw loolu daal laa am lu ma ciy wax man doon sax du ma wax ci ay politique ak yooyu waaye yàlla ñu suñ borom tabaaraka wa taala defal ñu jàmm waaye képp kuy gis hmm. te saa borom may la moo xam dangay ngay ramlu moo xam da da da maam da ngay lisxaar moo xam lu mu doon hmm. tiit nga lool ci sa bopp. bi maanaam xel yi bu maanaam lii fi ni nii xaalis bokk na ci li koy maye mooy xel mu dal. te xeli Sénégalais yi maam maam daa dëlul waaw fi ne nii jàmbar gu metti gépp loolu la mooy réew mi dafa nekk ci crise réew mi ni mu nekkee ci crise mooy ki réew mépp maanaam ki nga xam ne réew mépp dañ maanaam dañ koo bëgg dañ koo muyul jàmm mooy Ousmane Sonko waaw waaw li ma ci bëgg a wax bari na waaye xam naa naa yam foofu waaw. le le bi waxoo ñu ci dara de ndax loo ci gis du dee sarax sax bi. bu ñu defaat émission dinaa teg tableau bi dinaa defal ramlu dinaa la leeral ci Ousmane Sonko lu bari dinaa la leeral ci Macky Sall lu bari dinaa la leeral tamit seen i xawaayit seen i biddiw seen lépp dinaa la leeral sax ba leeral la loo xam ne sax bëgguma koo leeral waaye dinaa la ko leeral. pour gi ñuy laam-laamee am yaakaar. yooyu yëpp dinaa ko ramlu incha allahu taala dinaa ko ramlu. boo ma ko ramloo ci génn rek. ñëpp dina ko seetaan doo. cheikh bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu kon ñi ngi sant bu baax di gërëm bu baax mboolem ñi nga xam ne ñoo doon teewlu Euh, di sant bu baax itam di sant bu baax a baax a baax a baax a baax ñi nga xam ne ñoo ñuy woo di rafetlu bu baax a baax xam-xam bi di sant sama mag itam Cheikh Bara Ndiaye mi nga xam ne li ma mboolem nekk ci man rek moo ko def ci man. di yemale foofu uh, émission bi ba beneen yoon incha allahu taala di wax wasalaamu alayna wa aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu